Makane ñu ngi leen di dalal kenn ku nekk di ko nuyu aussi ci turam ak santam di leen dalal jàmm nag ci Sénégal 7 la chaîne qui redimensionne vos émotions et qui vous redéfinit tout le temps nag ñu indil leen ko ba ngeen mën a am euh, kenn ku ci nekk question ba nga doon laaj ñu indi ci ay réponses yoo xamante ni bokk na ci yi ngeen doon xaar alors tey nag ma am plaisir bu mag di dalal ndaanaan koo xamante ni c'est une brave dame elle n'est plus à partout dans le monde. Euh, je veux juste dire euh, secrétaire générale en même temps directrice général bu Kër Yërmande pouponnière boobu nga xamante ni buñ ko waxee rek xel yëpp day demandoo ci la fameuse Ndella Madior Diouf macha allah muy nit ku baax nag koo xamante ni euh, tout le temps ci lu ñu ko woo rek mu def déplacement ak dérangement ñëw donc tey dañu koy bàyyi mu nuyoo mais aussi di ko remercier tey euh, ci disponibilité bi nga ñu euh, permettre tey ñu am ko ba mën la dalal tey ci Makkaan je pense deuxième fois. waaw donc defe naa première fois bi yaa ñëwoon. c'était à la maison. d'accord voilà. yoon man maa dellu si waat si yow la. <laughs> donc euh, maa ngi lay nuyu di nuyu tous les internautes. Euh, de Sénégal 7. déjà di nuyu Pape Ngagne Ndiaye. Mm-hmm. Euh, le staff. Mm-hmm. donc je vois que a une bonne équipe ici. voilà mm-hmm. maa fay alors cette année la Madior Aley Bouyo moom nag nekk euh, na soo xamante ni euh, dafay def liggéey bu am solo fii ci réewum Sénégal ndax mooy borom groupe WhatsApp yi macha allah di borom pouponnière yi en même temps di bégal Sénégalais yi parce que bu génnee ba àddu ci lu mu mën ci doon mais aussi femme politique parce que elle évolue dans la politique. politique et aussi elle fait des des analyses pertinentes ci yi nga xamante ni moom mooy politique yi réew mi donc loolu yëpp bokk ci li nga xamante ni mën nañ ko ko tappal comme étiquette mais dañuy njëkkee rek ci émission bi nga xamante ni ah, bu ñu dikkee dina ay baat ak yu ñu sekk internet yi nga xamante ni tout le temps dañuy savoote bëggee Ndella Madior ah, saa booy ñëw dañu koy posté ci sunu site internet donc ñooñu en retour dañuy bëgg di def ay baat ak tontu yoo xam ne dañuy jógee ci ñoom di ñëw ci yow mm. afin que nga mën ci indi ay ci euh, euh, conseillère nga euh, conseillère municipale nga fële ca Fimela <laughs> macha allah donc nga koy def gratuitement mm. comme d'habitude comme ñeneen ñi ni ñu koy defee mais mu nekk métier bu noble boo xamante ni boobu ba tey ñu ngi gis nga di ko doxal comme ni mu waree mm. yaa jël engagement bi wala ñu la tapp la ak sa digganteek digganteeg Fimela s'il vous plaît Bon, sama digganteeg Fimela, c'est c'est c'est une une longue histoire hein. Ma mon père a né à Fimela. Voilà, donc euh, après euh, moi j'ai investi euh, dans la commune de Fimela. Mm -hmm. j'habite à Simal. Mhm. Simal fait partie de de Fimela. Donc euh, je suis conseillère municipale Walou. Mhm. wàllu de donc euh, là-bas euh, si élection législative yi weesu. si la nekkoon tête de liste proportionnelle. donc euh, de la liste wàllu. yàlla def donc ma comme que maa ko jiite woon donc man maa njëkk a jàll. mu nekk lu am solo donc je participe aux réunions au niveau du conseil municipal. comme mm. tous les euh, conseillers. en principe je devais être euh, adjointe au maire. Mmh. voilà puisque dinaa tooñ sama xarit yi fa nekk donc ils ont pris des femmes qui savent pas lire et écrire mmh. euh, ñu nekk adjointe au maire donc mu nekk une euh, une provocation une provocation politique okay. voilà donc on peut pas avoir une femme médecin chef de chef de parti def ko simple conseiller ab ko jël des gens qui qui n'ont pas un niveau important daf leen euh, adjoint au maire pour diriger la mairie donc c'est des failles qu'on trouve un peu partout donc pour des raisons politiques euh, les gens combattent une personne et cetera mhm. mais là c'est derrière nous mujj nañu waxtaan bu juboo toog añ foo et puis on a il y a une bonne ambiance à la mairie de Fimela donc il y a pas voilà donc foofu sax laa bëggoon ñu yegg si fa rek parce que euh, comme bu ñu sukkandikoo ci compétence yi nga xamante nii euh, vous avez pu par la grace de Dieu am ko bokk na ci euh, nee nañu médecin nga donc bari na ci lu bari yoo doon leeral aussi am nga formation bi yor nga rajo aussi donc am nga ci expérience ñenn ñi nga xamante ni wax nga ko tout à dañuy nekk ay conseillère municipale te du ñu mën du ñu mën écrire yéen jéego ngeen tegoon tey ba waxtaan boobu mujj antu ngeen toog waxtaan teguñu benn jéego dañuy gis may ñëw di participer si conseil municipal bi sa yu ma convoqué am naa je pense deux deux fois seulement yu ma jotul dem. Mm-hmm. parce que dama dama fanaanoon Dakar parce que je suis entre Simal ak Dakar. si j'ai conseil municipal il faut impérativement que je passe la nuit à Simal. Mm-hmm. si je passe pas la nuit à Simal avec les embouteillages ak jog suba teel beeg yooyu. ça pour problème j'arrive en retard voilà donc euh, si benn euh, conseil municipal si nañu toog waxtaan elles se sont rendues compte que Ndella Madior Dior avait n'avait pas de problème mm -hmm. voilà moi j'ai pas de problème je suis c'est en fonction c'est par rapport ak la personne avec qui je suis j'ai en face soo déconné ma déconné okay. soo seddalee ma seddal donc c'est tout donc elles se sont rendues compte que Ndella n'a pas de problème donc bon okay. et puis gisuma fi dara lañ fi lu fi jaar daaw daaw bay daanu Mm-hmm. voilà donc mm-hmm. euh, je gère la commission donc euh, NTIC. Mm-hmm. Euh, ak télé voilà foofu. voilà tout ce qui est audiovisuel. tout ce qui est communication là-bas et tout. donc c'est assez difficile parce que cette zone. il faut que état bi ak les télécommunications les les les les entre les téléopérateurs daf effort pour investir. donc pour ñu mën a am réseau. maanaam connexion. si ah donc c' est tout un travail. donc yéen a ngi ci c' est tout un travail. Euh, voilà donc man maay gérer commission boobu. Mhm. donc approché naa ñi ma war a approché donc ils ont promis de de mettre de renforcer les les pylônes pour que tout tout Fimela ak village yu nekk aux environs. Euh, les îles du Saloum ñu am connexion bu baax mën liggéey. parce que man su ma fa nekkee du ma mën liggéey. da ngay bëgg a live correctement day dem di ñëw. d' accord daw si Dakar. def si live correctement même à Saly on a ce problème donc quand on sort il suffit qu' donc on a toujours des problèmes de connexion au Sénégal on est en 2023 loolu waratul am. d' accord dañu avec tous les bénéfices que les téléopérateurs gagnent. Mmh. war nañu mën a investir ci euh, matériel bu doy pour permettre euh, à tout un chacun d'avoir une bonne connexion travailler un peu partout de de Salémata à Tataguine à Médina dañu war a mën a connecté wu. de l'instant ku si nekk même prix bi ngay fay. alors mi ngi noonu euh, parce que tey jii en tant que porteuse de voix et en tant que conseillère municipale euh, peut-être boo waxee loolu dina mën a am ay saafara mais ñu def rek euh, pour laaj la benn bilan bu mi-chemin boo xamante ni tey buñ la ko doon laaj ci tënk biñ la bi nga yoree conseil municipal boobu bu Fimela bi yan jéego la nga lam ndee la teg yoo xamante ne yu ñu mën a noté la on n'a pas un pouvoir on un pouvoir on est c'est un te amuñu benn pouvoir bu mag par euh, donc euh, maire bi si boppam moo gën a am pouvoir et puis euh, pour l'instant ñu ngi si liggéey ñu ngi si liggéey donc moi je vais à l'international pour apporter des des financements donc pour la commune de Fimela am na yoo xam ne maa si ci commencé dox et puis euh, le moment venu Sénégal yëpp dinañ yëg lan la ñu indi à la commune de de Fimela. donc boobu tey daal yéen a ngi ci di dugg ak a génn pour indi dara. bon mais mënaguñu wax lenn loo xamante ni Ndella tey pare na ko ba indi na ko si Fimela. non maa ngi koy maa ngi koy donc am na su fekkee sama commission donc euh, les autorités qui s'en occupent euh, gis nañu ko woo naa leen. Mhm. donc ils ont promis également de renforcer les équipements. d'accord hormis ça, du domaine de la santé, du domaine de l'éducation, donc euh, ce que j'ai fait également à la Simla, la pouponnière mm -hmm. de Mokaestel également à, à Simal, mm -hmm. puisque les femmes enceintes sont hébergées là-bas, mm -hmm. à Simal. Et puis, mon euh, ben projet Bourey. D'accord. Tambale mais euh, ça va être un, un, grand projet. Maintenant, toutes les femmes enceintes sont à Simal, sont hébergées à Simal. Elles accouchent au poste de santé décimale ou bien à Diofior ou bien à Fimela. Après, elle nous amène les bébés. D'accord. Voilà, ça va être beaucoup plus facile que de recevoir à Dakar les femmes enceintes. Voilà. D'accord, effectivement. Voilà. Donc, ah, au moins ça, c'est un acquis. Voilà, c'est décentralisé déjà, aussi. voilà, j'ai décentralisé. Mm -hmm. Et mhm. puis euh, à, Fim, à Simal, mm -hmm. Simal accueille les femmes enceintes. macha allah très bien. Mm. ça c'est une très bonne euh, bonne chose. les femmes enceintes en difficulté. en difficulté en difficulté, en difficulté. voilà voilà c'est bien noté. voilà loolu aussi nekk na lu am solo may fàttali ne aussi que ne yaa yor parti bii di réconciliation nationale pour l'unité africaine donc nekk une partie boo xamante ni bi mu amee. ba tey 300e parti. très bien. donc créé en 1995. très bien voilà <laughs> mu nekk parti bu am solo. en 2000 2000 2000 2000 2000 2005. 2005 nga ko nga ko teg voilà voilà. voilà donc ba 2023 donc euh, ça a un peu duré tout un parcours oui. voilà tout un parcours duré na bu baax. on a participé aux élections de 2012. effectivement j'étais la seule femme tête de liste. Uh-huh. boobu métti boobu 20 millions nga doon joxe caution. voilà donc euh, donc après ñu jógee fa après il y a eu les élections de avant c'était les émissions de 2007. Mm -hmm. 2009. Mm -hmm. tout ça on a participé. 2012 2000. 2014, les locales de 2014, après euh, il y a eu 2017, mm -hmm. là, voilà, donc euh, après 2019. macha allah voilà Et toutes ces élections on participe voilà. mi ngi dem mais ñu bëri nag li ñuy laaj ba xam euh, parti bi euh, pouvoir bi la gën a jege wala opposition bi. Mhm. wala dafa dem moom seulement. amul fenn. actuellement actuellement je peux dire que moi je suis beaucoup plus proche de du pouvoir. Du pouvoir. que de l'opposition pourquoi. pourquoi parce que l'opposition n'a pas confiance en moi on me considère comme benn pro Macky. ah boo xam ne euh, et moi je dis je suis pas une taupe. lu waral loolu voilà. lu waral lool ñoom ñoo ko xam comme que quand j'ai dit que le président de la de la République c'est le mari de toutes les femmes sénégalaises ça ça mais loolu moo ma collé ba léegi. ok donc léegi maintenant soo nekkee du côté de la mouvance présidentielle. on te fuit juróon na fi coow bu bari. on te fuit. Mhm. on te fuit donc euh, et puis là et là je suis dans mon coin. ok voilà. Euh, vous êtes dans votre coin c'est vrai mais est-ce que tax na aussi nga am ay relations ak ñi nga xamante ni ñoo féete ci pouvoir. C'est tous mes amis. Hein. D'accord. Ah oui. Ah oui, c'est tous mes amis. D'accord. Tous mes amis, les ministres, beaucoup de ministres. Président, les amis. président de la ah République, il y a aussi Donc, euh, dégante ou comme ça, euh, donc, mais à distance. Donc, euh, voilà, donc, yobante goul nak. Yobante Voilà, donc, gis bu ñu loxom. <laughs> Mais tudé na ko dom, tudé na ko dom. <laughs> Dafa am lu ko doy. Ah. <laughs> Da am lu ko doy, su da nga bandal rek. Sénégal de fépp ay métti. voilà fépp ay métti da dal de dina xam ne quelque part am na benn pouponnière boo xam ne da war a a teg tànkam. jeex na voilà teg loxoom mhm. muy lu mhm. am solo coalition wàllu aussi euh, bokk na ci li tax nga nekk fële. voilà la mhm. donc mu nekk coalition boo xamante ni gis nañ ko booba tey euh, yaa ngi ciy def jéego yu am solo mais ñàkk kóolu bi nga xamante ni yaa ngi koy wax ci côté euh, opposition bi andee la nag nañ waxtaan lan moo waral loolu. en ah, réalité question boobu non parce que du ñàkk yéen saa nga dégg de tuur tuuti yoo xamante ni di ngeen ah kon lii moo tax ñoom ñu mer à Bourba je sais pas. oh bon de toute façon coalition wàllu Yewwi euh, donc euh, man maa initié woon. Euh, cette coalition donc pour fexe pour ñu juboo parce que ñoom ils n'avaient pas réussi de se réconcilier lors des locales donc de 2000 on est les locales je pense c'est 2021 non mm -hmm. donc 21 2021 mm -hmm. voilà donc euh, dañuy séparé woon man si laa nekkee conseiller wàllu voilà donc parce que élection bu nekk il faut qu'il y ait des coalitions. mais ba tey yaa ngi wàllu. ba je je suis conseiller wàllu. Mhm. d'accord kon je suis conseillère wàllu chef de parti euh, chef de parti RNUA. Mm -hmm. et puis euh, quand j'ai demandé à Wàllu et à à Yewwi de s'unir pour euh, être majorité à l'Assemblée nationale j'avais raison. Mm -hmm. donc euh, mais après euh, les réponses tardaient pour. Euh, ma mën a wax officiellement je suis dans cette coalition. parce que je, je suis très autonome donc dafa ma dafa ma ah, lancé wu ma appel bi en tant que conseiller wàllu dama ko lancé en tant que chef de parti Hanouya très autonome. ne leen wàllu ak Yewwi dañu war a ànd. Mm-hmm. après affaire bi yeex donc euh, dégg naa si lu nekk après. Mm-hmm. après la dégg ñu ne pur d'accord woon. ok ça ça m'étonne pur. Moustapha Sy c'est un oncle mm-hmm. Donc euh, on se connaît pas. mais sama nijaay la. sama nijaay la sama mag la. parce que si ñoo bokk maam. ñoo bokk maam Selbe voilà donc doomu Boursine bu nga xam ne dafa demoon sëyi donc à Tivaouane. donc su ko defee ils ont leur raison toujours éthique comme man dama gaaw a dama dama gaaw dama gaaw gis sama bopp. Mm. voilà bi ma annoncé affaire bu mu commencé mayonnaise bi jël forme bu baax sax. Mm-hmm. gars yi di ñëw nag. Mhm. xam man yàlla dafa ma defal benn affaire boo xam ne fu ma dugg rek day yokk. non yaa xorom ci cin. waaw fu ma dugg lu mënul ñàkk. fu ma dugg day day kii léegi dama dugg rek ndeyla su fa duggee ko am lu fa ne. rek ñi ci commencé ñëw. c'est non sénégalais yi ñoo la bëgg. voilà léegi ñi ci commencé ñëw après man sama bopp xaw ma fu ma féetee. Mhm. parce que kenn notifié wu ma que je membre de cette euh, de cette alliance. d'accord de cette coalition. bon après je suis partie. d'accord voilà ma tontu mënoon nañ ma reproché mënoon naa xaar mhm. ba ñu ne ma oui wala non mhm. mais bon je suis partie donc euh, j'ai fait des émissions j'ai déclaré que j'étais plus dedans mhm. voilà donc euh, question boobu ñoom nga koy posé loolu yëpp mi ngi si ginnaaw toujours est-il que dugg ma ñoom tamit seen liste nationale dugg comprendre d'accord ñi ma doon xeex si biir bu ma bañ a dugg ñoom tamit dugguñu dugguñu donc euh, xam kenn du tooñ doomu donc mu mel ne kon buñ la tegoon seen wet dinañ dugg. par force. i su ma nekkoon si biir. kenn du def erreur si ay ay ay parité. ah donc loolu la ñu indi comme conclusion que y avait des erreurs. loolu erreur moo tax seen liste nationale jàll. ok d' accord. parce que Sonko était euh, à Ziguinchor. d' accord. que moo doon tête de liste bi. Mm-hmm. donc naagu na benn façon naagu mu bàyyi ñu defal ko liste bi xam nga sooy dem affaire liste. Mm -hmm. bi da ngay nekk mandataire bi. d'accord soo nekkulee mandataire bi y a toutes sortes de trahison possible. ok d'accord soo naagoo toog batale ko nit yi dafa mel ni rek nga jël paaka rek jox ko sa noonu rek na ko sama baatangoog. day mhm. da koy rendi. Mhm. voilà donc. Euh, macha allah finalement euh, tout le monde a perdu. mu nekk lu am solo ah, ci njiital Pastef boobu sax. tout le a perdu mais. Mhm. Euh, am nañu courage quand même. je salue leur courage. puisque bokkuñu ci liste nationale mais seen liste. titulaire. Mhm. seen liste suppléant. Mhm. moo dugg. d'accord après ba basculer loo xam ne musta am si Sénégal. très bien voilà donc. Mhm. Euh, xaw nañoo jël la majorité. ñu bari aussi gis nañ constat boobu que ne. Euh, bokk na ci opposition bi ci l'histoire du Sénégal opposition bu gën a am tànk fii ci réew mi loolu aussi si à saluer ci ñi nga xamante ne tout le temps ñoom tamit dañu koy dañu koy dañuy xalaat loolu donc nekk na it euh, lu am solo ñu ñëw desandi tuuti ci njiital Pastef boobu di Ousmane Sonko récemment de retour ci li nga xamante ni moom mooy tribunal boobu ñu daal di koy génne ci mu dugal ko ci beneen oto boo xamante ni c'est yóbbu waat ko këram ñu bari aussi indi ay jiixi jaaxa euh, ci seen xel ci lan la ñu namoon ci loolu ak lan moo waraloon génne fii dugalaat fii Ndella Madior en tant que femme politique euh, tey lan nga xalaat ci loolu. bon événement bu muy am boobu maa ngi doon enregistré Starlight. à Sen TV. d'accord voilà bu ma génnee la sama doom woon ne ma am xanaa yogu lu xew bu leen jaar côté bi jaar leen côté bële parce que oto Sonko génne nañ ko si otom toj nañ kii bi c'est pas commencé manifester. on mhm. a fait le grand tour pour rentrer tranquillement à la maison. Mhm. une fois sur place je me taal YouTube pour euh, xool euh, les vidéos en question. Mhm. bon bi ma gisee vidéo au départ ce que j'ai vu j'ai vu dans sa voiture. très inquiet très agité. et euh, des gendarmes policiers qui sont là qui demandent d'ouvrir la porte. d'accord ils la vitre. cassent la vitre et ils le sortent et ils le mettent dans une voiture blindée. D'accord. Pas dans une fourgonnette, euh, les fourgonnettes qu'on qu met d'habitude et les gens qu'on arrête, mais mmh. dans, une fourgonnette, dans une voiture blindée. Bon, si ça, si, j'ai dit, bon, si c'était une arrestation, dinañ ko dugal si si euh, leur voiture blanche là donc euh, dugal ko si biir. Mhm. mais ça il y a une protection. j'ai vu automatiquement moi une protection quelqu'un comprend. on est dans une voiture taxi. voilà voilà donc ñu jël ko dugal ko ci <laughs> ah, donc il y la protection dans une voiture blindée. Hmm. et après de la voiture blindée on l'amène à la maison. mu hmm. wàcc rassuré tout le monde a vu qu'il était rassuré. Hmm. donc ñu wàcc après mu dugg këram. d'accord donc loolu pour man il y a une raison quoi. d'accord il une raison pourquoi. l'extirper de force parce que bëggoon bëggul woon génne est-ce que c'est une arrestation on lui dit c'est pas une arrestation donc puisque si c'était une arrestation directement euh, au commissariat. ñi ñu bëri li leen jaaxal aussi mooy pourquoi toj vitre aussi. mais comme que comme dafa xaw a dëgër ba. Mhm. gendarmerie taxaw. Mhm. ne ko ubbi buntu bi bañ ubbi. mais il casse mhm. la vitre. ça genre je vois pas de problème là-dessus hein. je veux te sauver. ou bien y a un problème boo xam ne bëgguma nga avancer seul. ma ñëw ne la génnal dama lay yóbbu xamuloo yow sa sa bopp xamuloo lu xew mm-hmm. ubbi nga bañ mm-hmm. tëj vitre bi très bien ñu desandi ba tey ci moom yàggul dara mu demoon Padoa seeti maire ba fa nekk mun Maymuna euh, mais mu amaat leneen lu fa judduwaat mu mel ne jàmmarloo entre policiers yi ak askan wi amaatoon na ba ñu déggoon aussi que ni yaa di lacrymogène bomb yoo xamante ni xet bi mu jund dem ba accéder ci hôpital Nabouchekère donc ba ay sale opératoire aussi euh, ña fa nekkoon commencé di amaat yeneen problème en tant que aussi femme yow nan ngay gisee jàngat boobu ñu bëri nañ euh, woon yoon waaye yow tey ji euh, nan nga ko gisee ce qui me gêne mooy quand il sort parce que c'est un Sénégalais quand même euh, un citoyen normal hein, comme man comme yow mais chaque fois suy génn y a la police euh, et la gendarmerie qui est derrière c'est très gênant quoi vraiment loolu war nañoo éviter euh, ce spectacle je sais pas pourquoi ils font quoi donc euh, euh bon bay sànni électromigène il faut pas qu'ils sortent ça c'est c'est regrettable. ñu bëri aussi jàpp ne euh, nee la que ni euh, Macky Sall mu ngi nekk directeur campagne bu bu Sonko yow da ngay partager avis boobu. bon c'est c'est des gens qui font ce genre d'analyse donc euh, am na loo xam ne soo ko defee da ngay def may nit promotion. voilà da ngay may nit sympathisant ak militant. d'accord voilà am ñoo xam ne par exemple bëgguñu ko woon léegi commencé nañ ko bëgg. Mm-hmm. parce que acharnement bi ñuy bay ñu doog acharnement. moom aussi mu bàyyi leen ak boppam. waaw bon, parce devant une personne armée, tu ne peux pas résister. Mm -hmm. Parce que si tu résistes, tu prends le risque de résister. D'accord. On le tirer balgadé. Ok. Voilà, c'est pourquoi il est obligé parfois de, de, de, de se calmer et puis mm -hmm. de les suivre. Voilà. Mais spectacle venu offrir Sénégalais, day mel ni benn acharnement benn persécution. effectivement même le fait de casser une vitre euh, pour que mu génn après ñu jël ko. Euh, kenn brutalisé wu ko il est sorti calmement ils l'ont je pense qu'il était même entré avec un, un de ses avocats. d'accord voilà donc euh, certainement dañu am écho que amoon na ay ah, lu naroon am ñu ñu teel ko génne dugal ko ci blindé pour parce que su fekkoon dañuy rey Sonko keroog jooju. Euh, les gens allaient partir directement au palais de la République. tey ñu bëri aussi ñu ngi jàpp ne par exemple état bi da doon natt boppam ci tey bu demoon ba war a am lu mu def euh, day nekk loo xamante du ci am benn problème moo tax mu doon natt boppam ci jële ko ci benn oto dugalaat ko ci benn oto du samay kàddu nag ñeen ci askan wi ñoom ñoo xalaatee noonu est-ce que loolu tamit da ngay partager cet avis. non je partage pas cet avis natt boppam si lan. parce que euh, je pense qu'il y avait une prévention mhm. prévention li ngi doon gën a def mhm. xamoon xam nga les services de renseignement dañuy xam lu bëri luy xew ah, lu nit ñi loo xam ne loo xamul ñoom dañ koy xam mhm. donc euh, le fait de de de de casser une voiture de sortir de mettre dans une voiture blindée moi je pense c'est une prévention am na ñoom xam nañu que dafa naroon am lu xew peut-être dañ ko doon rey euh, si yoon bi. ñu ne xaaral nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko protéger balaay meurtre bi am. balay assassinat di am. Mhm. te assassinat su amee avant les, les gens ne vont rien Ken. comprendre. Voilà, bala ñu koy jiiñ kenn. ne vont rien comprendre directement dañu koy jiiñ. directement ils vont au palais de la République. parce que gars yi dañoo xiif dem palais de la République c'est ça le problème dans cette histoire là. d'accord Sénégalais ñoo xiif xeex. Mhm. les gens qui sont les militants de l'opposition dañoo xiif xeex. d'accord ñi nekk ci pouvoir bi tamit dañu xiif xeex man loolu laa loolu laa loolu laa acharnement boobu nga xam ne ñenn ñu bëri jàpp nañ ko disant que ni ñu bëri ci jegeñaale ñi nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko yi dañ leen di jàpp loolu aussi ci acharnement bi lañ ko mën a boole wala ils ont leur raison peut-être qu'avec les écoute xam ñu bëri la ñu écouter mm-hmm. les téléphones sont sous écoute mm -hmm. euh, si tu ne parles pas sur WhatsApp euh, tu vas par la voie normale parce que tu es pressé mm -hmm. euh, tu n'as pas une bonne connexion nga jaar si voie normale les gens t'écoutent voilà xëy na dañuy déglu dañuy suivre seen conversation même les appels WhatsApp aussi dégg naa léegi dañ koy déglu léegi voilà donc euh, voilà donc euh, en écoutant dañuy am ay certaines informations moo tax ñuy ñuy ñuy tëj parce que mënuñoo rek di tëj comme ça euh, aveuglément donc dañuy am raison valable mhm. et des raisons valables de ou bien pour casser benn certaine dynamique d'accord ah, soo waxee xat ñu ne kii guerrier la comme le cas de nit dof saaga ba pare excusé wu na. Mhm. ah donc euh, mais bu mu koy def il était dans un autre état. donc wax wax wax benn. Mhm. on sent kii daal que c'est un mal quoi. boo xam ne bu mer quoi. Mhm. et puis l'État a peur de ce genre de personnes et puis comme que temps yi daf euh, y avait les procès à venir et tout ils ont. ils ont jugé nécessaire de de de le mettre sous mandat de dépôt. ñu desandi ci procès yooyu nga xamante ne tudd nga ko tout à l'heure bokk na ci bu Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko ñu bari jàpp ne tuxal bi ñu koy tuxal bari na lo am na ci loo xamante ni dafa mel ne waxuñu ko Ndella nan na gis-gis. non moi j'ai dit si yenn interview que je accordé euh, le premier jour je savais bel, bel et bien que procès du am parce que a droit à. deux procès il a droit à ses avocats par exemple soo jëlee benn avocat de plus. Mhm. avocat bi écoute je viens d'hériter de ce dossier. Mhm. laissez-moi le temps d'étudier le dossier un dossier boo ne soo pertee sa euh, client dootul nekk ci candidat à la présidentielle loolu jar naa jar naa xalaat bu baax balaa nga koy song. d'accord du affaire tapette quoi du affaire dawres mais c'est une stratégie de défense. d'accord voilà pour verdict bi bañ a teel a tomber. d'accord voilà donc ces ces avocats ont adopté. Euh, cette stratégie de défense, puisque le ministre Mambenya, il est toujours près, lui. Il est toujours prêt, à 9 h il est au palais, il attend. les gars, euh, premier jour, il ne s'est pas déplacé. Donc, avocats ils ont demandé le renvoi qu'ils ont obtenu. Deuxième jour, il s'est déplacé, mais il a augmenté le, le, apparemment les avocats. Les nouveaux ont demandé un renvoi pour avoir étudié le dossier, mm -hmm. pour y voir plus clair. il peut même encore avoir d'autres envois. Mmh. Il peut avoir d'autres envois pour des motifs bien, bien bien bien bien valable quoi. d'accord xam nga Sénégal aussi la ñu nekk te kenn ku ci nekk tey par exemple nee bu xalaatee nii ñeneen ñi ñuy xalaatee autrement ko nii ko analyser mu pertinente ba bëgg a dee ñeneen ay tactique la rien que pour gën a mën a xool la ñuy tegee ay ndëgg sarax pour Ousmane Sonko. non non c'est Ousmane Sonko qui demande des renvois c'est pas Mame Mbaye Niang demande des renvois effectivement ci c'est vrai il et on le voit. mais Sénégal la ñu. Euh, euh, c'est Ousmane Sonko qui demande c'est l'équipe d'Ousmane qui demande un renvoi pour étudier parce que doo bugul bugul teel a daanu parce que ah, yow da nga jàpp ne day daanu ma daf bugul teel a daanu mm-hmm. voilà daf xam nga loo xam ne su fekkee dañ la condamné euh, sursis dama la prison mi condamné le succès sursis tu peux Euh, sa candidature à la présidentielle en 2024 day day dañ koy compromettre. d'accord kon loolu kay doo ñëw songu songu procès bi à tête baissée mm-hmm. euh, des stratégies d'augmenter les avocats ku bees ku ñëw. donnez-moi le temps d'étudier je viens de d'être constitué. d'accord euh, membre du collectif d'avocats donc euh, laissez-moi le temps d'étudier ça c'est des stratégies de d'avocats. yow ban ban yëg-yëg nga am ci njeexitalu lii. man wax naa ko dès le départ moo gën a métti dossier Adji ah bon voilà parce que même sursis mën nga bañ a mën nga bañ a soo amee sursis sax doo présenté wu. d' accord bele soo suñ la condamné nga doo présenté wu mais bii sursis rek mën nga mën nga bañ a bokk. sélection c' est très grave. bii moo gën a danse kon. bii moo gën a métti parce que moo gën a jege beneen date bi kenn xamagu ko. d' accord beneen date bi kenn xamagu ko aussi yow jàpp nga ne dina ami Ousmane Sonko Adji Sarr. waaw waay ah dina euh, bëggoon nañu procès ba nga am. et que l'État, la justice a carrément euh, débouté les, les avocats de Nicaragua Ousmane Sonko il y aura bel et bien procès. Mhm. date bi la ñuy la ñuy fixé wu. Mhm. nii si xeex la ñu nekk. d'accord xeex bu métti la ñu nekk. ci xeex boobu ba tey ñu ñu ñu toog def benn analyse parce que gis nañ tension politique bi day gën di exagérer tout le temps ndela jàpp nga ne lu maanaam tension bii nii mën na jur ëllëg stabilité et Sénégal. déstabiliser bon pour déstabiliser le pays. Euh, fu mu nekk nii on est dans une poudrière et que euh, tout peut arriver tout peut arriver par exemple euh, avec le procès je pense c'est le 16 mars. Mmh. parce que Boagy Sarr kenn fixé gul date bi. bu mhm. léegi donc le 16 mars c'est dans quelques jours. Mhm. Euh, su fekkee tenir nañu procès bi le même jour. Euh, du ñu xam verdict bi. Mhm. ok après euh, le jour on saura la décision de judiciaire. Mhm. Euh, ba qui est en faveur ou défaveur si c'est en défaveur de de Sonko. Euh, les les militants de Sonko ne vont pas ne vont pas se calmer. kon daal liy xeeñ neexul liy xeeñ neexul non. liy xeeñ neexul dafa mel ni xeex moo nar a am daal. voilà kon jàpp nga ni stabilité yi mën na mën nañ koy dégg rek mais duñ ko gis. xam nga ñoom Sonko dañu am xaalis léegi. dañu am xaalis. waaw ak ah, seen parce que maa ngi dégg aussi ñu ne dañuy def benn cagnotte benn oto. buñ koy waaj a wutal loolu dañuy am xaalis léegi parce que ñoom seen cagnotte yi dafa man seen cagnotte bi yaa jaaxal nañu. waaw mi ngi gën a yokk ni ñuy mobiliser xaalis dafa gaaw. parce que sénégalais aussi dafa am ñoo xamante ni dañu bëgg Ousmane Sonko. léegi soo mobiliser xaalis bon écoute euh, en tout cas ils arrivent à mobiliser beaucoup d' argent. et quand on a de les moyens de se battre xam nga xeex da koy financer. ok on a droit à une résistance la résistance coûte cher. ok Pape Alé Niang su résister grève de la faim lay def. Mhm. mais gars yi dañuy grève de la faim de. gars yi dañuy xeex sur le terrain. d'accord keneen nu mu résister dafa xiifal boppam. ok pour des raisons de santé dañ koy génne. effectivement d'accord parce que image am aussi moo ni toll. voilà d'accord léegi ñii nag pour résister. Mhm. dañuy xeex sur le terrain. te xeex sur le terrain bi da ngay am xaalis pour xeex ku amul xaalis du xeex. ku amul xaalis. doo xeex. mais coow xeex bi mhm. dafa cher xeex moo cher. Mhm. xeex. Mhm. xam nga il foog nga dox di daw si ar si artères yi. te sooy daw si artère wu Sénégal yi dakaar yi day fekk sa biir am na lu sa ne. très da ngay lekk ba suur. ku la koy jox. ñi la sant pour nga xeex. tout à fait doo ñëw rek di bokk si xeex ñëw de ça se finance une résistance ça se finance. mais nee la xeex bi ça se finance station d'essence yeeg kii yeeg yooyu ñuy taal ak yooyu. am nga gis est-ce que bokk na ci li ñuy wax ci la démocratie est-ce que loolu dëppoo na aussi ak démocratie fii bi ñuy woote tout le temps Sénégal. ku nekk ku nekk ak ni ngay politiquer. mais d'accord nga ak xeex bi nii ba pare saa fu ñu toll naan démocratie démocratie loolu yow est-ce que ça sonne bi dans l'oreille bon le problème de démocratie vraiment sama xarit Macky Sall dafa war a bàyyi képp ku bugg a présenté wu nga présenté wu. l'histoire du parrainage est à revoir est à supprimer. d'accord donc la caution doit être réduite. xam nga caution bi ñaata nañ ko fekkee woon. ñaata Ablaye Wade mi nga ko fekke woon un million. en million pou les législatives trois millions pour la présidentielle. Mhm. trois millions pour la présidentielle. d'accord dugg ba si biir nekk président de la république yéege ñun ñun ñu ngi tombé si kii ñu ngi tombé si vingt millions. sur l'an deux mille bi nga doon joxe un million pour participer si législative. Mhm. ñun vingt millions la ñu joxe. Oh. man de vingt millions laa joxe. c'est vrai pour participer 2012. kon mën nañ laa xaar ci 2024 bi aussi. 2024 maa ngi est-ce que 2024 dina am. ah bon amoo ci yaakaar. amoo ci yaakaar. su fekkee parce que ñaari camp yi dañuy di xeex. kon gëmoo ne 2024 dina am. no mais bu dee am di nga di nga di nga def. di nga postuler du ma ne bu dee am 2024 bi dama koy sentir tout. parce que dama xool ñaari yi ñii dañuy fas yéene xeex. mais bu demee ba am. Ndella mën nañ ko fa du am du am Ndella am na ci lu ko leer. vingt 2024. Mm. Mame Mbaye Niang na retire pas sa plainte. Euh, Sonko ne dafay xeex 2024 du am gars yi dañuy xeex. te suñu xeexee dëgg dëgg dëgg dëgg parce que ni ma gis nii. Mm. mouvance présidentielle euh, opposition bi ñoo gën a weex mouvance présidentielle yi. Ah. mouvance présidentielle dañuy ëpp dañuy nii rek dañuy show nii rek pour Macky Sall gis leen. ok su desulee dara du ñu xeex dañuy duggaat seen kër mouvance présidentielle loolu laa gis. loolu nga gis waaw jeunesse bi la jeunesse de l' opposition est beaucoup plus déterminée. Mm-hmm. dans une bataille. que la jeunesse de la, de, de la mouvement présidentielle. La jeunesse de la mouvement présidentielle attend d'être financée pour, pour exercer sur le terrain. Mm-hmm. Nous avons des financement, des moyens pour se battre. Mm-hmm. Mais énergie bi fa la gën a ëppee. kon ñi nga xamante ñoom ñoo fete woon ci pouvoir bi te xam ne amoon nañu pouvoir pour mën a xeex léegi ñu ngi gën a am concurrence bu gën a euh, jël volume parce que ñi aussi comme ni nga ko waxee tout à am nañ xaalis am nañ moyen aussi yoo xamante leen xeex yi nga xamante ni kenn ku ci ne takku na ba dëgër pour li mu bëgg mu am ko par la force yow ban message nga leen di. à ce stade fu mu nekk nii. Euh, xeex bi est inévitable man loolu laa gis quoi parce que Mame Mbaye Niang ni ma ko gisee ne n'est pas à retirer sa plainte waaw munu il n'est pas prêt pour mhm. retirer plainte donc euh, ndax moo attaqué mais nga wax rek en tant que maire donc euh, bon dañu bëgg a xeex <coughs> yow da nga mel da nga leen di encouragé ci xeex bi euh, encouragé wu encouragé wu ma leen mais dama constaté yow gisuloo gars yi ni ñuy bàkkoo côté mouvement présidentiel ñu ngi félicité mhm. ñu ngi félicité Mame Mbaye Niang pour mu continuer Mame Mbaye Niang mu ne dafa am honneur am la ñuy bëgg a yàq moom dañ koy setal wala mu démissionné ok xam loolu la wax mhm. dañ koy setal fu set wecc wala mu démissionné mhm. ñele ñele di jàmb ne de façon ku leen condamné duñ ko d'accord ndeele mii ndeele mii di moom waxu ko waaye bëgg nañu jàmb <laughs> ndeele yow mii may di sama wax moo dëggu rek <laughs> sama wax bi moo am caac rek. moo tax nit ñi bëgg. comprendre nga wax bi moo am caac rek. ah waaye mais man dama bëgg Sénégal sedd guy. Hmm. waaw allez bëgg sama liir yi. parce que da ah, wax dëgg yàlla bébé ma ah, ñu nekk ñu nekk si ñu ah, nekk si. tudde nga Sonko j'espère. tudde naa Sonko tudde naa Idrissa Seck tudde naa Marème Faye Sall tudde naa ñoom ñëpp Euh, soxna Dieng Mbacke moo ma seet si. moo la seet see waaw moo ma seet see mais ñoo xam naa ne politique bi. moo am ko talaguñ ko mais bu Sénégal bi dinañ ñëw waatee dinañ ñëw. ñu yooyu. voilà ma wax ci. Mm-hmm. parce que nekkul rek euh, ci côté di mayante euh, jëkkër ak jabar yaa ngi ci indi ay relation amicale yaa ngi ciy wut aussi. am na am solo nag loo xam ne il faut ma wax ko. muy la xam nga yaa ngi may ne il faut nga wax si xam la am si wax. waaw suñ leen seetaanee ba ñu ba ñu bëri. mënul ñàkk de. suñ leen seetaanee ba ñu bëri ba ñu xeex uh-huh. pour man Sonko du ñàkk de pour man Macky Sall may ñàkk. ok xeex su amee. Mm-hmm. Macky Sall may ñàkk. ndax lu tax. ndax xeex su amee gis nga ñii dañu am moyen xeex te xam artère Dakar yi. en une fraction de seconde gis nga euh, coupe du coupe du af d'Afrique bi ni ngi yi dem bris du palais. Mm-hmm. Mm-hmm. envahir les artères de Dakar de plateau. opposition bi ñoo ci gën a gaaw. mais dafa yomb. dañ ko maîtriser léegi. dañ ko maîtriser. d'accord. pour envahir ba dem si palais xam dafay yomb. Mm-hmm. soo si amee xaalis day yomb. kon mm-hmm. gars yi su ñu demee attaqué palais. yow loolu nga gis. loolu laa gis. d'accord gars yi su mm-hmm. ñuy xeex. ñu ngi xeex di dem attaqué mairie Guédiawaye ni mairie Ziguinchor. d'accord donc euh, su ñuy xeex jël décision xeex. gars yi dañuy dem palais. d'accord léegi te su ñu demee palais. Mhm. y aura une une une résistance. ñoom gars yi ñu nekk foofu du ñu toog jàpp seen ñàmbur dañuy aura une résistance. donc on risque de voir l'armée sénégalaise prendre le pouvoir loolu ku ko gisul ça veut dire que tu pas une vraie politique. loolu la ñu ragal. voilà man loolu laa gis dafa leer nañ si man nii. d'accord xeex su amee rek armée bi jël pouvoir te armée su jëlee pouvoir 2024 du am. waaw ah, parce que yow déjà boobu ba tey yaa ngi koy wax. xeex su amee vingt 2024 du am. ca donc day. xeex su amee. Mhm. vingt 2024 du am. te bu 2024 amul aussi du neex ci sénégalais yi. non 2024 pour mu am il faut que lépp sedd. te yow lii nga gis gisoo ci dara luy sedd. ñaari camp yi dañuy weex. dañuy mhm. bëgg a xeex. Mhm. kenn bëggul reculer. su fekkoon dañuy reculer dina sedd vingt 2024 day am calme wa day eh, am ku mën sa morom duma. très bien mais xeex suñ si raxee xeex. Mhm. parce que Sénégal yi dañuy tàppet nag yow tamit. dañuy bëgg dañuy bëgg dañuy dañuy a mu gën a gudd. dañuy gaaw a waxtaan parce yow Sénégal yi dañ la bëgg te bu may toog ak yow du ma doyal. <laughs> mais lan nga ñu mën a wax voilà waaw yow yaa non groupe ngi gën a dugg mi ngi gën a dund. lan nga ci waxul loo xamante ni daan nga toog te daawoo ko ci wax. du affaire sëy kese. Mhm. amitié mi ngi si. Mhm. mariage mi ngi fi. Mhm. demande d' emploi et offre d' mi ngi fi. très bien euh, migration régulière maanaam conseil visa ñi nga xam dañuy ñàkk ay millions si ay ñu leen di nax. Mhm. ñun dañ lay conseiller gratuitement. pour ne la écoute yow soo demee di nga am yow soo demee buy soxla sa bopp doo am. d' accord. yow foo xam ne soxlawul Maroc bi soo fay dem doo doo fay visa. ok Mauritanie doo fay visa Gambie doo dem fay visa. pourquoi vouloir aller impérativement au Canada aux bien en Europe. Euh, jaaree la ko si ay voies yoo xam ne ah euh, nga dem ambassade yàq xaalis parce que ambassade yi dañuy jël xaalis bu bëri. Mm-hmm. des des beaucoup d' argent par mois des centaines de millions. Euh, donc provenant des Sénégalais désœuvrés. Mm qui sont perdus qui veulent coûte que aller. à xam nga dañoo nekk euh, ci lu mel ni réewum Sénégal euh, ci ay retour la rek yoo xam ne parfois da nga koy dégg mais comme yow yàlla dogal na toog nga di nga bëri ay leeral yoo ci indi parce que yow yaay administratrice bi nga xamante ne du ci bëri yaa koy coordonné ñu ne yenn ci groupe yooyu dafay bëri ay dóor yu ci am euh, ndeel a tey ban jàngat lay def ci loolu xam naa daal man li may tere sama groupe mhm. jigéen yi dugg si groupe bi surtout ñi nga xam ne dam leen dugg gratuitement mhm. dam leen di wax bàyyi bu leen woyaan. d'accord parce que groupe Ndella Madior 77 612 39 69 groupe VIP la. Mhm. dafa nekk benn groupe bu baax. Mhm. boo xam ne dafay euh, ay ndaanaan ñoo si nekk. Mhm. su ko defee léeg-léeg mu am nag ñoo xam ne dañu xaw sonn wax ak man wax ak man moo xam ne ba ma yërëm leen dugal leen. après dama si am déception. d'accord ndax dugg parfois di di woyaan si biir groupe bi te loolu baaxul. Ah, donc su ko defee léegi góor ñi ñoom dañuy ñëw si man. Mhm. ah parce que loolu daal loolu daal. Euh, bokk na ci inconvénient yoo si lu mu nakkari waaw lu mu nakkari. parce que yaa boole aussi ay nit. maa boole yi si kër gi tey de. soo leen ko sekkee yaa encore problème mais nit ki salaamaaleykum maaleykum ça surtout temps yi dugal naa presque une vingtaine de de nouveaux membres ah donc euh, donc euh, il faut pas que ñu agressé leen di leen ñaan xaalis. macha en tout cas mm-hmm. ça a été un plaisir. Mm-hmm. la. Mm-hmm. merci aussi ci déplacement bi. kontaanoon naa trop tey sekk ak yow plateau bi mais j'espère que ma terminer émission bi te du ma wax nit yi pour ñu def seen don. visiter. bien sûr xale yi ñëw seet si xale yi. xale yi waaw pas loxo neen. ñëw seet si xale yi ak i couche. parce que aussi charge bu métti la donc da ak euh, ni ko xatee meew yeeg yooyu ak yëre yeeg ndox yeeg yooyu uh-huh. indi charité xale yi ah moo gën yow ñëw yëndu leen après dem doxa bu ñuy ñëw dañuy indi charité voilà son excellence mais am naa benn don bu am solo une dame qui s'appelle Mariam Euh, Sall. de Lille une gonéenne goréenne qui vit à à Lille. defar na ma benn don euh, ay matériels yu baax a baax a baax. pare bu ñu ko sa démonté. presque une valeur de dix millions. donc euh, mu nekk lu am solo xale yi léegi am nañu fu ñu tëdd bu baax. am nañu fi ñu mhm. fooyee mhm. donc. mu nekk lu am parce que intention bi solo baax voilà mhm. donc xale yi daal kër yërmande. mu nekk lu lu am solo. manque commencé depuis le 14 août passé. am na si mois donc na si ñëpp jàpp. macha allah voilà na si ñëpp jàpp te ñuy ñaan nag. ñuy ñaan Sénégal nit yi dal. xeex woo beeg tribunal ñëppay ñàkk. billaahi suñu xeexee ñoom ñaar ñëppay ñàkk. Mhm. Sénégal des. armée jël pouvoir. Mhm. ñoom ñëppay ñàkk te loolu. ñu ñu loolu gisuma ñu ñu ko daal moo gën. ñu maytu ko. donc luñ ko gën a mën a maytu moom mooy gën bokk na ci li ay kàddu yoo xamante ni moom la Ndella Madior jeexale mhm. ci ñu gën a ñaanal jàmm ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo féete ci ñaari camp yëpp indi ko woote ko bëgg ko ci seen xol pour mu mën a am bokk na ci li nga xamante ni mooy tax ñu am Sénégal Sénégal bu bu meilleur. bu am naataange bu am jàmm bu am xéewal alors merci beaucoup moom laa dalaloon tey ci émission Makkaan un partout dans le monde foo leen mënoon nekk aussi yéen a ci émission bi léegi maa ngi remercier tout le monde di remercier Carrefour Fashion ci tenue am solo yi nga xamante ni depuis décembre ba tey moom may accompagner ci tenue yi may sol c'est le 78 521 62 94 képp ko bëgg ci tenue yu mu mënti doon yu classe yu tendance moom ngay contacter may eh, sant bu baax ak nuyu nag sama mag eh, ñilaan Diagne eh, Nafi Diagne borom ñilaan shop doomu nday Bellevue Adama donc moom it maa ngi koy kontaane jigéen bu mën góor la jàmbaar donc ñu ngi koy ñaanal xéewal sutura ak tawféex dinaa la fa yóbbu ndee la. amul benn problème habillé la parce que ñooñu dañoo am classe. absolument ay sa jeex na merci beaucoup. di leen jaajëfal di remercier ñëpp ak toute l' équipe technique d'ici là portez-vous bien et passez une excellente fin de soirée bye bye.